te nag yàlla tere na kuy njaaloo yow na la torop sax ñu jaay. ah fan yii moom tàngaay bii ah ndox mi war naa wàcc ndax tool yi kat na nañ ndox waaye nit it na mën nañu ndox. torop ah man damay ruuj ruuj ruuj ba sama digg ginnaaw yëri ma soon sax dafa teppee. waaye yooyu it mere naa la lool. a Ndiaye lu ma defati. xam nga ni cere jii nga bàyyi ci biir mun nar a yàqu fii ah du tàngal ndox sa nga sottil ma kat guddeeg jàmm salaam ma reet. Ndiaye yaa gën a xam ni man cere rek laa bëgg cere jii tey jii moom laa fas yéenee def reer yow tamit Ndiaye. su ma ko waxul woon kat doo ko wax. Ah, dama doon noppi rek damaa xam ne dangaa bëgg lekk moo tax ma daa bàyyi la ci biir rek nijaay. ah léegi waaye di yooyu moo baax waaye. maaleykum salaam maaleykum salaam. ah Diop Diop Diop Diop Diop Diop Diop na nga def Diop. bisimilah bisimilah bisimilah Diop. ñoo toog nii Diop Diop Diop Diop Diop Diop. na ko fii ñu ngi fi jóg am rek tàng na de. Ah, tàng na tàng na. Ndakaaru gee nga ko de. doxe nga naaj bi. waaw doxe naaj moom big laa ñëw na. Ah, biig moom laa ñëw. biig waaw. man kañ nee naa sama nijaay liy kurkuree ci kër gi asta du ma asta du Malick. ah moom nag ah. ah kon. ah naka fi naka Ndakaaru naka xale yi ak piix ci biir mimi ci biir mimi ci biir. sama tànk yi nag moom. Uh-huh. lu ko waral moom. Uh-huh. Ah, tànku jàmm la. Uh-huh. tànku kontaan la. tànku mbégte lan la. non wóolatuma leen. lu nii. non non wóolatuma la li ma wax xam naa fu ma ko teg. waaw waaw. jàmm rek la jàmm rek la. ni ngeen mel nii daal ëpp na ëpp koo xam ne wóorul daal wóoratuma ci sama bopp c'est pas sûr. waaw moom laa bëgg waaye bàyyi rek ma changé sama buntu nekk moo gën a wóor. yaa ngi daw de ñu foog ne da ngaa ñeme. yaa ngi daw ah, ñeme woon naa au début de waaye da ngeen mën hmm. da ñeme nag ñeme nag dara dem. en tout cas je suis content je suis très ravi. trop. sama rakk la. ma ne ko yaay sama xale bu mel na. waaw. fa may liggéeyee fële ca Dakar. dafa am ndaw su may liggéey ndool foofu. Mhm. mu bëgg ab jànq. Mm. xalaatuma ci kenn ku dul sama jarbaat. ma nag naa ñëw. waxtaan ceeg yow. comme ndey dafa jege ci doomam. foo jaar ma wax ko. loolu waroon sama tànk yi. dëgg euh, euh, yàlla bu baax. alhamdulilah rabbil alamin Diop gannaaw yàlla. jiw ma ngor. ak teraanga. dara warula ko lu dul kii waaw mënoon ngaa seet nag si yu bari waaye seetoo kontaan naa lool tey mënoon ngaa ñëw jël miim yóbbu ko bañ maa tàgg nga yaakaar dinaa ci wax ah, du ma si ŋaan sànni sa cër tamit du si sànni ci ah, ah yow noonu nga ko baax na yow sax yow kañ kañ nga bëggoon ñu tàmbali ko. suba daal soobee yàlla bu ma xëyee ci horaire bi laay. ah loolu de nijaay ak sant la. parce que sama. Mhm. ndax xam naa ne sama nijaay sama nijaay mii. Mhm. xamoon naa ne loo dugg lu ne. Mhm. du ci teg baat ndax xam na ne ñoo bokk benn ween bi. feeg loolu yëpp am na nag. xaaral ma woo Mimi. ñu xam kàddoom lan moo ciy xalaatam. Mimi. Mimi yoo. naam yaay. kontaan naa de kontaan naa si trop. na def. na nga euh, ngi fi. barikal. ani waa Ndakaaru. ña nga fa. naka fii. ba yaa ngi ah boo mel sa yaay ay de mii. Mhm. ah jàmm doom ngay am de. man kontaan naa ci sa yaay ji de. mii mii. Mhm. na góor góor day góor ñu ngi góorgóorlu fii bu demee Ndakaaru na gën a góorgóor man nag awma toogaay ah Diop olof Njaay neen tunga ne du teew ñuy nata ñoo la jur maag sa ndey ji bëccëgu ndaru kàmm te nag lima lay wax ni dañ see kontaan lu baax a baax a baax a baax bëgg nag nga jàpp ci bu baax a baax a baax mii mi gënuma laa xam sa ndijaay ji nee na dafa am gennas ndawam koo xam te ni kóllëre ma nga nekk ca Dakar. ñu bokk fa ñuy liggéey sa service dégg nga sa service bi ñuy liggéey daa bëggul ab jànq te xelam demul si kenn ku ci yow boo demee na nga am fulla am fayda. jur nañ la nag fañ la war a juree li si des nag yaa koy mottali